Assalamualaikum warahmatullahi taala barakatu yéen a ngi ànd ak seen TV la chaîne des valeurs tey ji ñu am mbégte bu yaatu si quartier Thierno Kandji si établissement Diaw Bache tey seen 31e numéro émission

nen ciow rek duggu ci biir établissement bi euh, sekk ki nga xam moy waxtan jaw Diaw Bass aco ñu dem thank you

waa kay jërëjëf euh, professeur Cheikh ñu ngi lay nuyu di la di nuyu aussi ñi nga and ñi nekk ci technique bi yëpp di nuyu wa mubarak TV di nuyu ñi ñuy sétane au niveau national ak international yëpp euh, ñi ngi nuyu bépp doomu Jurbel euh, di rafetlu aussi li nga xamné ñew nga ci kër gi pour diso ak waxtaan ak man. jërëjëf nuyu bi gatt na waaye amna ñariñ lambo na lépp tay ji ñuy sék ak yow waxtaan mu ak sunu 31e numéro. Euh, tey su ñuy wax euh, kan mooy Mamoune Diaw lan ngay wax penc mi xam naa présenter sa bopp wax sa bopp dina jafe mais tey soo ñuy wax euh, Mamoune Diaw fan la jàngee maamu jaw ndax jàng na alxuraan ndax jàng na nasaraan Mamoune jaw ay jaar-jaaram fan la juddoo fan la yaroo fan la màggee fan la fekk baax lan ngay dénk penc mi Diaw. Mamour Diaw benn doomu Jurbel la bu dëkk Jurbel juddoo Jurbel yaroo Jurbel màggee Jurbel jàngee Jurbel Jurbal aussi la mësa fété euh Mamour Diaw euh na 1974 euh, mi ngi juddu fi ma nek tay la juddé yalla dogal ma nekkon champ de course ba ma démé nek ben instant aussi euh dem ba jëmmi jamono ci wat fi kon Mamour Diaw Thierno Kandji la juddoo Thierno Kandji la ñëwaat Mamour Diaw ben doomu Jurbel la boo xam ne boo xam ne jàng na ba sem2 booba it yàlla dafa dogal suñu waajur da doon jaay fëgg jaay boole goo boole kook tamit dafa doon ñoo xam ne ni ay nitu alxuraan lañ amul benn doomam boo xam ne ni ñàkk a dugal alxuraan soit nga yàgg fa ak nga ñàkk faa yàgg moo si nekk mais dafa am ñoo xam ne ni yàlla da leen di def boroomi jom euh, nit it aussi dafa naan ñaar dafa am si àdduna benn man nga juddu sa baye man parce que lu ñaan doomi baado la sa baye man dem ba yàgg mënatut wala nga juddu wala jël relève sa baye lolu boko defé ngay borom jom rek tem sa jang mën na teel dag wa ila euh, nga nuru si jang gëm ne da nga réussir ngir jël relève yalla dafa dogal euh suñu waji doon jaay fugu jaay dem ba yag katan gam amon amatu ko ñu ñew jël relève jël relève ñu ngi commencé jaay fëgg jaay mille neuf cent quatre-vingt-neuf lañ commencé jaay fëgg jaay jaayal ko suñ bopp avant boobu moom lañ doon àndal bokk na 89 boobu aussi laa bàyyi jàng 1989 boobu laa jaay jàng parce que boobu laa commencé jaayal sama bopp fëgg jaay jaay ko jaay ko jaay ko ba 96 booba ma commencé dugg si affaire location chaise boobu chaise plastique amut mais chaise yu weñ moo amoon. ndax avant 96 93 dama fay nek ba yag liggéey bi deuguer ma dem fi kaolak di jaay jeun bolé ko digënté euh, marché geej ak marché kaolak ño ak euh, syndicat bi ño dënd bu gudd bi damay yanu fofu si Damba euh, comme ndek syndicat bi ci damba ak wacc xaal ak yoy beccëg gi ma dem ma dem marché geej di jang dafa set di di di wacc di jël ay pugar di wacc ak di di di euh nek fofu sama badjan la fa nekkone nekk naa fa durant 7 mois retourné wat mu ak dévaluation ma dem Dakar ginaaw fëgg jaay la xam damaa jëndloo fëgg jaay 93 94 euh, euh, instant dévaluation ñëwaat di jaay fëgg jaay 96 daa commencé dugg ci wàllu chaise ak bâche Mamour kooku moy Mamour Diaw fi dal la jotta jaarandigum euh, ba si kanam bu fekke amna na leen idée idée ñëw di luy ay chaise ay bâche ay kin ay bol fan la la dikkee waa xam nga 96 dafa fekkoon ne booba euh, ñun dañ doon tëgg ay ay coladra dañ tëgg ay coladra léegi koñ ba xam nga lu amoon nii li amoon bu njëkk amut léegi bu njëkk xew bu daan am daanaka waa koñ ba ñooy futteeku ñëw baas boobu baasu takk moo amoon def potulandi baas ak yooyu boobu koñ yi dañoo amoon solidarité uteeg léegi euh, booba it ba ñuy lii di dem di jël jën luye ay siège weñ di indi ma dem ba yàgg di liggéey sama liggéey nag aussi ginnaaw dëgër na day dem ba yàgg neex ak naqari ma ne fokk ma ut lu ma ko toftal ngir mu mën a yor samay dépense mën a mën a doxalaale sama avenir looloo tax liggéey bii bu dëgëree ma continuer si liggéey 96 ma commencé ko dem dem dem ba vingt fekk boobu bâche ba ba weñu bâche weñ laa amoon dem ba yàgg ut ay euh, bâche kii baasu takk laa amoon dam ba yàgg ut ay chaise weñ voilà booba

da nga koy takk boo takkee côté yi sampi jën def slande base si digg bi waaw loolu laa commencé woon euh, cinq chaise plastiques laa déparé woon ak euh, benn su takk loolu laa déparé dama yàgg utaat benn baasu démontable waaw loolu laa déparé woon. nga si am ay jafe-jafe si nit ñëw damm sa chaise bañ laa fay euh, wala nit yàq sa bâche bañ laa fay wala colodra am ñu xot sa bâche ndax daan nga am jafe-jafe yu mel noonu. waa si xam nga dëkk bu nekk dafa am ay réalité te bu yàlla dogalee nga nekk si koñ euh, ndax bu njëkk xamuñu woon yenn fayeekuy métti ak dem police ak dem gendarmerie bu njëkk xamuñu ko woon ndax booba boo ne damay dem police damay dem gendarmerie noonu noonu nit ki nga parce que booba it euh, li ñu xamoon rek mooy dund gi yëpp di benn bon nit da daan ñëw damm chaise teewul maslaa nga mën a def ndax yàlla dafa dogal lenn suñ borom daf ma ko mës a mës jagleel mooy ba ma amee chaise ak bâche yi dëj bu am koñ ba musuma koo luye man maa yenu yóbbu monte bu jeexee ma jëliwaat daal di indi loola ndax maa ngi ko boole woon ak fëgg jaay loola moom yàlla dogal na ginnaaw sama doole la sama bagage la maa doon yenu di indi ba loola ñëpp xam ko dëj du ko luyee boy saraxal nak ma do a lool la doon doxalee sama sama sama vie. le secteur informel c'est une longue histoire parce que yag nga yëngu ci li nga xamné moy secteur informel bi euh, formel bi euh, daanaka yaa yang siy soog dugg. muy mhm. entrepreneuriat euh, lan mo la duggal si entrepreneuriat. de yag na ko formaliser nak ndax 2004 la am sama sama reçu de commerce individuel 2007. la am parce que jaw bâche dafa am lu ko indi aussi. jaw bâche waaw dafa am lu ko indi voilà. 2007. Mhm. defe naa suma 2007 la formaliser am euh, GIE jaw bâche waaw la formaliser am GIE GIE jaw bâche am euh, am euh, ki Nenea jaw bâche waaw teewul aussi. may fay doon fay doon am ay marché da am ay quitus fiscal ak ak yooyu mhm. yàgg naa koo formaliser si cadre boobu mhm. Euh, mhm. coaching pour devenir un champion euh, Yangi Yangi un leadership euh, si la jeunesse sénégalaise la jeunesse du du d'aujourd'hui tey dit soo amee Tu dénk am gum parce que Diaw jaay na jeun ay mango mhm. na gardien pour devenir tay fi nga exit conseil comme toujours dama koy faral de dama naan nit dafa am ñett yoo xam ne nii bu mu ko rëcc si àddunaam benn wax mu teppeeku ñu ne bu ñu waxee ne kii kat lu mu wax du ko def sa crédibilité wàññeeku na beneen bi euh, toujours moomal sa kàddu mooy wax mu ñàkk teppeeku beneen bi euh, si looy nekk am si vision gëm ko ndax loo loo loo gëmut doo si sori parce que te lo togul xaar dara du la fek euh benen bi moy and ak yar manam lola heure bu ko nit mankelé dina am du bari lu ko mankelé parce que lenn rek mom moy alalu aduna ci doomu adam moy confiance loolu moy alalu aduna ci doomu adam ndax lo duggu ñu ne diiw kat demal si diiw kat am nañ ci mom yaakar parce que nag wan nga nit ñi lu tax nga may am si ñoom con am si yow confiance mais bu ñu desee am si yow confiance rek ñu bëri dañ lay daal di moytu li ma leen di digal daal mooy buñ yàkkamti nañuy fexe doon ñoo xam ne ñu dëggu lañ nañ ànd ak yar. ba tey yéen a ngi ànd ak euh, seen télévision Moubarak TV la chaîne des valeurs euh, ñu am mbégte bu yaatu di dalal ki nga xam ne mooy Serigne Mamoune Diaw euh, alias Diaw Bass fii si établissement am nekk fii si quartier Thioné Kandji suñ 31e numéro seen émission noo ko dundee tey ñu am mbégte bu yaatu nag di waxtaan ak moom. si walu entrepreneuriat rawatina secteur bi nga xam ne moom mooy secteur formel bi nga xam ni dugg na si en 2007 comme ni mu ko waxee mais Diaw Bass dañu am lu lay laaj Diaw Bass kan mo nek si ginnaawam. parce que yow baas euh, kañ nga am idée aussi euh, di ut ay sonorisation ay teg daanaka Jurbel kenn uteetul dara ndax bu njëkk dañ daan wax Sénégal bâche dañ daan wax Xelkom bâche et cetera et cetera ba tey Jurbel lépp lu nu xewle jaw bâche rek na ko mën a gérer jaw kan moo nekk sa ginnaaw. xam nga Cheikh nit euh, lépp lum nekk rek na ko gëm d'abord gis nga ba may jaay fëgg jaay dama gëm ne dama doon yor di wër ma gëm ne dama war am table. parce que gis nga borom taabal boo boo gis boo xottee xol ba magasin sa ma gëm ne dama am ta war a am taabal yàlla dogal ma am taabal di jaay booba tëli njóobentaay bi nekkagu fa di jaay di jaay defe naa ne bu fekkee ne lii yàgg nga ma faa xam ñu bëri dañuy dégg jaw baas gis na noo kii kay xam naa ko marché te effectivement booba damaa dem ba gëm ne war naa nekk fournisseur bi indi di jaay ay bal fëgg jaay yàlla dogal ma dem ba doon fournisseur boo xam ne nii man maay jënd ay magasin ba ay bal indi diko joxe mën na indi 100 bal joxe ko duma ci si dajale cinquante mille te ay lay doon. bu ko defé ñay liggéey bu ñu versement parce que booba it amna ci lo loo xam ne nga doxale ci affaire sociale ndax kuy ñew ku nekk borom kër nga te ñëpp amuñu ñu jënd yow da nga leen di jox tek ci lo xam du bari bu ñëwee ñu parce que man suma daan indi bali euh, bo calculer yow nga passe aller retour Dakar moy gëna cher la ma la koy joxee. loolu yàlla doon na ma si wërsëgal loolu aussi loolu loolu foo dama la dama la koy rek pour xamal loolu benn bi mooy euh, comme jow bâche yu nekk si ginnaawam euh, ba may luyee bâche bu gis bâche yu démontable damaa gëm ne dañoo war a moderniser bâche dañ ko war a formaliser euh, benn bu njëkk bi moderniser bâche bi ndax lu nekk dafa am fu muy dépare comme li nga ne di nga si ñëw sànq bu fekkee mën naa ñëw si tour bi d'abord Euh, ndax man ba ma njëkkee commencé maa ngi tuddee jaw jolof jolof dem ba yàgg tuddee GIE BBDF di nga gis ay chaise de fer yoo xam ne mën naa nga gis ko gis GIE BBDF muy GIE jaw euh, GIE BBDF Bawol Bache jaw et frère lool laa tuddee woon sama bopp léegi nag ñu bëri naan jaw jaw te affaire communication li gën a gàtt ni ñu gën ko mën a téye moom ngay profité jël ko ma ne naa tuddee jaw tout court Bache mag ñi sax boo waxee rek automatiquement dañuy jàpp jaw bâche ndax pour ñu prononcer GIE BVDF day jafe loolu rek mënoon naa tax nit ñi duñ gaaw a jàpp sa tur ma continuer euh, jël jaw bâche foofu la jaw bâche juddoo ba léegi euh, xanaa suñu borom ak samay waajur yi nga xam ne nii ñoom laay jege di waxtaan ak ñoom bu fekkee ne si cadre financement du kenn ku ma financé xanaa di góor góorlu lu ma am xam ne am naa dara naa ko ut bëgg naa dara envisager ko ne naa ko wut fexe li nga xamee nii ndax dëkk aussi boo xamee réalité rek réalité dëkk ba di nga xam noo fay dundee ak fi ngay jaar gens qui dit que Diaw Basse dafa am ay partenaire Europe ñoo koy jàppale ñoo koy financé loolu loolu loolu la ñu tontu waaw dama lay wax ne la même njaa Jurbel bii rek d'ailleurs aw ma si partenaire yu may financé waxuma laa ak Europe mm-hmm. man dox naa ba ay nit toog nañ si jataay sama téléphone sone ma yëkkati ñu nekk si werante bu métti ñu ne dañoo dégg ne Diaw euh, Bache day voyager day dem ay Italie ak États-Unis yooyu ma ne passeport musuma ko am <laughs> wallaay la si passeport musuma ko am dafa am loo xam ne nii dama koo mës a gëm man ba may tukki ba may booba avant 2000 am na jamono yoo xam ne nii tukki boobu la ko nit ñi gënoon a bëgg mm-hmm. booba euh, ñama doon jaayandool ña ma doon jaayandool booba ñi ay tailleur la ñi am na si ñoo xam ne si ay booba lañ tukki. Mm-hmm. parce que booba Jacques Bonnet mu ngi nekkoon ministre des affaires étrangères. Mm-hmm. dégg nga ñu bëri am na ñoo xam ne foofu lañ mais damaa gëmoon ne euh, tey su ma amee fukk dajalaat fukk mu am dara mm-hmm. te booba jege woon samay waajur aussi dafa maa gënoon a yitteel dégg nga tellement que moo taxoon presque en général lu bëri daaw ma tukki te it dama doon am toujours la ma doon envisager dama naan. Euh, tukki baax na gaa ku nekk fa sa wërsëg ku nekk foog nga jëli ko fa mais dafa am lu bëri loo xam ne ni si tukki danga koy manqué parce que mën ngaa tukki yàlla mën na man may koom mais njaboot dala koy xaw a wàññil loolu aussi dama ko doon dama ko doon sóoraale ndax boo fi bàyyee soxna benn soxna ñaari soxna dem fa cinq ans retourné waat pour nga am njaboot benn kaa la loolu dama ko doon gën a envisager dama ko doon gën a wax wax tamit. ok euh, Diaw Ba euh, sonorisation bi fan la la fan la la dikkalee. waaw sonorisation bi dafa am lu jiitu sonorisation bi parce que euh, défilé da doon am ñu daan am problème mu tribune tribune mi ngi daan jógee ay Kaolack wala Thiès wala dakaar surtout dem te yaa am na fi tribune ba tàyyi mais ba ma nekkee ma ne lan moo tax lu xew rek Jurbel du am dara ma profito defar ay tribune tribune yu yoo xam ne yu méngoog jamono mm-hmm. indi ko. ne damay ñëw sa sama participation ginnaaw comme patriote ginnaaw Jurbel laa dëkk la yeneen dëkk yëpp bëggee seen dëkk ma bëggee ko sama dëkk. ñëw ne daan fay dara. non euh, dama daan ñëw indi samay tribune teewul daan nañ ma jox loo xam ne dinaa ko jox emploiye yi mais teewul. daanoo waxaale ñoom. non daaw ma waxaale ñoom daaw ma waxaale ñoom mm-hmm. ndax lu tax daan naa ko installer daaw ma yàqal te it téye ko. Jurbel am jafe-jafe tribune amul ma sens ndax li ëpp solo euh, li may faral di wax toujours suñ ma doon jox cent million walla cent milliards ak Jurbel développé Jurbel moo ma développé moo ma gën a cent milliards wallahi lazi euh, ndax ñu ah. gis ne euh, Diaw fii Moutala Bassam fii ameen buub ak ñeneen ak ñeneen ngeen am benn kuréel am benn association seen association boobu mu toll yow waaw euh, am na benn amoon na benn association am na benn association boo xam ne euh, ñu yor bâche yi ñoo ko seq muy ku mel ni euh, man amen bu bas jong petit laay faamanta mbay jaw pabbey waaw defe naa ñoo ñoo ko sa badra mm-hmm. ñoo ñoo ko seq mm-hmm. bon bañ ko seqee yàlla dogal na ñu defoon benn programme mm-hmm. programme ba suñ borom dogal mu réussir mais xam nga kuréel Euh, daanaka euh, yu bari day dem ba yàgg dox dem ba yàgg taxaw dafa demoon ba yàgg taxaw ba mu taxawee nag yàlla dogal mbas mi ñëw ba mbas mi ñëwee ñu ne euh, nañu fexe nañ ko activer si mbas mi ak mbas mi aussi hmm, commencé woon nañ ko activer mais it aussi ak activation yi ñu kuréel yu bari taxaw lañ soxla woon dëgg-dëgg amuñu ko. seen association boobu est-ce que juboo ngeen seen biir. xam nga. Euh, ñàkk juboo suñu biir ndax ñunu neen rek dañoo juboo waaye nag kuréel gu nekk xalaat yi mën nañoo bañ a bokk waaw xalaat yi mën nañ bañ a bokk ndax juboo nañ suñu biir ndax kenn ku nekk amoo benn xaar ma yàlla sa morom waaw euh, mais ànd bu nekk su amee programme ndax yow mën na ko appuyer jàppale ko si ay matériel ay outils yoo xam ne soxlawu ko. Ameth Mboup ay anniversaire am dama doon indi tribune ak ay bagages si gratuit duma fay benn dërëm. Mhm. installeel ko defaral ko won ko ginnaaw. Mhm. dégg ndax sama rakk la mhm. euh, amen bu ku baax la sama rakk la te it euh, dama ko yéene jàmm mhm. yéene ñëpp jàmm mhm. su ma sañoon képp kuy euh, luyee si wàll wàllu dund si wàllu événementiel dañ lay dégg foo xam ne duñ fa dégg beneen doomu dëkk bu dul Diourbel wallaahi léegi yow Bass da di yëngu si événementiel gis neen Covid bi fu mu tolloon am na seen activité yu bare arrêté na ko lu mat ay deux mois trois mois liggéey loolu nan nga def ak say employé waaw comme entreprise yëpp ñu def ak sen employé parce que dund na jafe-jafe ñoom it aussi dund nañ jafe-jafe waaw parce que Covid bi ku nekk ay la yoon ku ñew ku ñew dina xam ne di nga di nga képp ku ci jaar di nga xam ne xel Covid jaar na ci yow surtout ñun durant mois yëpp dañoo tëj suñuy place nit bu tejut lam doon am munu ka lam warona am munu ka am kon ñame andal li la liggéey ñu am nañ daan am waaye teewul ay gor la ko Euh, ñoom it na ma ko sentiree dund ko ñoom la ma ko sentiree dund ko ngor gañ àndal moom lañ continuer ànd loola moom moo ñu moo ñu li ñu li ñu boole ñun si biir établissement bi euh, dafa nekkul wàllu liggéey rek mais affaire familiale moo ñu boole affaire dund familiale moo ñu boole ndax boo ñëwoon si jawbaas munoo xàmmee kii yee kii mënoo ko xàmmee euh, jawbaas maamul jawbaas ku ñu joxoon ñun ne kee mooy jawbaas doo ko xam mhm. lan mooy sa secret làqatu lan la <laughs> non pas làqatu c'est que waaw <laughs> non pas làqatu c'est-à-dire euh, gis nga euh, àdduna boo yëkkatee say mbagg rek nit ñi nit ñi duñ la nawloo te suñ borom wàcc la nit ñi li ëpp solo mooy koo giseel sa nawle la te jàppal na moo la féetee kaw mm-hmm. loolu boo ko defee di nga jubóog ñëpp ndax yàlla dogal na lenn si man mm-hmm. ndiarum ñep sama xar lañ xar ma yalla <laughs> euh so digante sa euh, say employé lan ci nek euh ban secret mo ci nek parce que gis na né employé bu xas nañ ñàpp joobaas rek li ngay fay dafa bari euh, li ngi leen di jox dafa bari euh, am na ñu wax ne sax euh si li li liggéey si nañ taxay jabar si nañ i seen soxna lan mo tax joobaas ah, ay employé am rek kolé ko li ma la xamal moy doomu adama lepp lo xam ni xal ne liggéey na gisu ci njëriñ mu teel ko ba mu gën man de dama naan su may ànd nit ay at gisuma si yow changement ma xam ne bëggoo sa bopp ma xool keneen ko bëgg boppam wallaahi lazi ndax li ëpp solo mooy li may dund man dama yor jabar am ami doom ñamay àndal di liggéey dañoo yor jabar ami doom kon boog position bi nga taxawee ñoom boofa lañ taxawee jàppal ne xaalis ñëpp ko bëgg te it lii li lii li li lii téye nit dëgg la naam euh, li si ëpp solo yëgeel si la bokk euh, lool loo am aussi ngeen bokk ko di diisoo. Diaw Bass ñu gis ne 4 euh, avril yële weesu Diaw Bass da daan ñëw di ay tribunam euh, dem yéeg tribune officielle mais ñu gis yeneen 4 avril Diaw Bass day défilé wane arsenal bu doy waar idée boobu la dikkee. ren da da da ren moo gën a waroon a gën a doy hmm? moo naroon a gën a doy waar suñ borom dafa dogal Covid bi dugg ba hmm. parce que ren ndax ba toogee xool daaw ak daaw jeeg surtout année yi nga xam ne ñu ngi défilé mm. ba ma toogee xool xam nga euh, entreprise yi en général mm. toujours dañuy daal di mel ni lu làqatu te gis nga xale yi seetaan si dañoo jàpp ne euh, militaire doo nga war a défilé mm-hmm. te fokk nga jox leen ay exemple ñuy xool di roy si yow parce que bu bëri xale yoo xam ne ni maanaam dañuy xool di di bëgg a roy si jaw Bache motax yu bari amna yu bari yo xamni dang koy woné exemple pour xalé bi aussi di gor euh tay suñ bàyyoon militaire rek di di défilé 4 avril militaire ay jambar lañ policiers yi jàmbaar lañ chapeur yi muy euh, gendarme yeeg yoy mais ñom rek moomuñu ko ñom dañ ko bokk ak civil yi civil yi bu ñëwé ba ba ci dugg dañ leen yaatal ba paré té dañ leen bëgg accompagner mais bo xolé militaire ñooy encadrer ñooy encadrer ñëpp mooy surtout homme de tenue ñooy encadré ñëpp ñi nga xam surtout civil yi nga xam ne ñooy def défilé léegi buñ ñëwee aussi xale yi déjà dañuy dañuy tàccu di di lii kenn ku nekk après ñëwaat fi mhm. di laaj manaan ko góor góorgóorlu nangam sàngam xale yi di ñëw sax man ko amul résultat bu baax doo am nangam wala wala nangam. Euh, Diaw Bass e les autorités administratives. dañu giseen sa relation particulière ak le gouverneur Mamadou Moustapha Ndaw euh, amoon ngeen relation bu proche mais euh, Pape Gorgui Mbaye seen relation xawuta kii de waaw euh, pourtant. soo ko dundee nga nekk de. pourtant est-ce que xam nga ne. ni ma mel ak euh, ndaw. nu ko raw laa mel ak mbay. Hmm? yàlla xam na ko xam nga ñoom ñaar lañ soxla euh, ku dëggu lañ soxla ak koo xam ne liggéeyal tax a jóg parce que ñoom. Euh, surtout ñi nga xam ne ni ñoom lañ fi affecté si wàllu administration ñoom ñëwu fi toog fi euh, toog fi toog fi toog fi à vie mais dañ fi ñëw dem après keneen ñëw mais boo xoolee euh, tey ñoom bu fekkee ne am nañ benn réussite benn entreprise wala keneen seen réussite la dégg nga kon boog buñ gisee ñuy def effort ñoom dañ siy góor lañ siy jàpp. yow ak Pape Gorgui Mbaye amu leen benn problème. xanaa xamoo ne xamoo ne gouverneur mm-hmm. dama naan dama naan euh, xam nga miinu ma ñu njëkk ñi xoolal miinu ma ñu njëkk ñi uh-huh. mais kenn gënu ko ku góor Gorgui mbay mm-hmm. kenn gënu ko mm-hmm. si benn si waxtaan ak dalal nit yàlla xam na ko gis nga yàlla dafa dogal ñu may jox ñu ñaar ñoo xam ne muy gouverneur ak préfet ñoo xam ne euh, noo dikkee dinañ la dalal waxtaan ak yow donte da ngaa jaaxle woon sax sa xel na dal <laughs> waaw boo ko amee si kilifa da ngay sant yàlla. <laughs> ba tey yéen a ngi ànd euh, émission noo ko dundee seen télévision Mubarak TV la chaîne des valeurs euh, tey ji ñu am mbégte bu yaatu ñëw fii si quartier Thierno Kandji si établissement Diaw Bache euh, di dalal kilifa gi nag muy le PDG d'entreprise entreprise Diaw Bache mu ànd ak ay collaborateur am ànd ak ay liggéeykaayam ànd ak ñi nga xam ne ay employé nam ñu amoon mbégte bu yaatu nag dañuy ñëw si nday mbill gi muy le festival des enfants ñu gis ko defar nga ko daaw mu am réussir cent pour cent cent pour cent yàlla sax mënu ko am mais daaw am nga cent pour cent euh, Jurbel yëpp di ko réclamé waat ndax ren day amaat. jërëjëf euh, laaj nga mu aussi question bi ma bi neex te am solo ndax festival des enfants ñun dañ koo dañ koo dañ koo téye xam nga lu tax ñu téye ko bokk na si ñaari mbir benn mooy xale yi amuñoon benn cadre bu ñu épinuré beneen bi mooy. dañu japp ne mën na nek pôle économie dëkk bi kon dafa boole ñaar yoo xam ne dañ koo wut ñu taxi si benn comité bu dëgër boo xam ne ñoom dañ koo caaxaanewut euh, ndax li ñu gëm kenn ku nekk gëmoo yow li ngay gagné gëmoo li ngay am mais li ngay gëm mooy nii la réussir ndax réussite Jurbel la euh, daaw am na Jurbel waa yépp génn kontaan Euh, ñu def si sacrifice yëpp nag ren aussi ñu ne fas yéene nañ mu am ndax daaw euh, xale yi sentir nañ ne lii mosuñu koo dund seen àdduna parce que seen baay sax yi daan ñëw dañ doon wax naan lii suñuy doom am da ñun mosuñu koo am kon boog wax dëgg yàlla loolu sant yàlla la te loolu xalaat bi déjà génn naa gis ne cadre bi xale yi nangam affaire bi choqué ma suñ borom jaaré fofa ba ñu japp ci parce que limay ñëk wax ñi ci non idée bi idée bi fu mu ñëwee mooy li ma wax sànq 31 euh, décembre genn na man ak samay xalé samay dom bañ genn ñu doxantu amuñu benn cadre buñ jëm bañ amul benn cadre buñ jëm euh ba yàgg ñu ñu delu ci wat ci kër gi tok di seetaan télé xale yi di fo ñuy seetaan luñ gis ñu jaaxal ma affaire bi choqué ma ma ne lii ni ma dalee man dalee na ko yeneen njaboot mu naqari ma ma ne déwén donte fukk dërëm laa am dinaa ko bokk ak xale yi ñëw si magasin ba sa suba sa ñu toog waxtaan ma gis su ko Diop moom mooy coordonnateur festival des enfants fu mu toll nii ne ko Souka ma waxtaan moom si cadre bi ñu toog waxtaan waxtaan waxtaan mi ne ah kon nañ si jóg dox si def si effort kon déjà foofu la déparé ñu jóg def si effort ñu ne kon ginnaaw demee na noonu nañ def nangam ak nangam ak nangam ragal nag du jam buy parce que boo yaakaarul dara it doo songu dara ñu yaakaar ne war nañ mën a def benn festival bu mag fu ñu war a jaar ñu jaar fa bañ fa jógee ñu njëkk a song mooy directrice centre culturel Sira Bam ñu ngi koy nii au passage ku baax la waaw euh, ñu ñu jaar si moom waxtaan ak moom mu dalal ñu daal di def si kéemtulaay kàttan pour festival bi taxaw ñu jaar foofu door di jaar nag ndax am na projet boo xam ne ni su ko commencé na ko bind ñu waxtaan lenn lu si nekk moom dund na ko xam na ko xam na li ma bëgg ñu waxtaan ak ñeneen ñu yokk si leneen bañ lañ am soxla ñu am ko ñu boole si lépp nag. Eh, ku mel ne eh, Penda ku mel ne ku eh, ku Amdi Bey arsenal boobu yëpp xalaat yi fu mu ba nga ba nga teg bureau bu mel noonu xam ñooy doxal festival bi. xam nga en général li ëpp li daan gën a am problème mu Jurbel mouvement bu mën taxaw dañ naan jàkk gis ci kenn ne ay dóor ko lal lu bari ko ba taxaw dañ ne ñi ñuy ñoo xam ne njaarim tànn nañ leen la ñuy tànn te defe naa ne nag doo si xool kenn ba ne ko acam ñoom ñëpp kenn ku nekk ñëw gis festival bi mu ñëw volontairement gunge ñu def si kéemtulaay kàttan ndax ñoom ñu ko ñoo si gënoon a sonn imaginel borom kër xëy suba teel toog ba minuit une heure deux heures du matin doo luwaat kër delluwaat këram te du dërëm ngëm-ngëm moo ko festival euh, euh, ngeen si foire gis nañ si euh, benn conférence boo xam ne maître Ibrahima Gueye moo ko animé euh, wàllu scolarisation des filles si wàllu këyit juddu euh, gis lu doy waar loo xam ne am nga si ay millions de yow. waaw dama la indil tuuti rek si foire bi. si si si si festival bi. xam nga festival bi mhm. bañ ko xalaatee affaire xale la léegi ba ñuy waxtaan ak direct santé culturelle moom moo ñu booleeg sax ki nga xam ne am na manège mu wax ñu lu cher mhm. ma ne ginnaaw mu sa am Jurbel mhm. lépp lu lépp loo xam ne nii euh, am na feneen amul Jurbel nañ fexe mu ñëw dégg nga ndax non booba gëm-gëm laa ko tegoon yoru moon xaalis gëm-gëm laa ko tegoon parce que dund naa ko daaw ba ma ko dundee nag mu saga ma lii nii aussi warta saga doomu Jurbel yi parce que li gën a doy waar si àdduna xale lu mu xamut innocent la si nekk gis nga tey euh, xale mën naa bañ a xam manège bu demee benn dëkk mu am manège innocent la fay nekk xale yi fii yéeg daaw bu buñ demee feneen nañ xam ne dund nañ ko léegi kon duñ si nekk innocent léegi benn jurbeluwaa du jóge ñu ne innocent la si nangam kon loolu sant yàlla la mais suñ déparé foofu imaginer établissement Diobass déparé foofu comité bi déparé foofu ñu dem ba yàgg keneen yokk leneen mais Lola, day dem ba yag luñ soxla Jurbel dañ koy am. yow leralal penc bi leralal askan bi ñong koy xaar ñong koy ni koy wax si marché yi. ni koy wax na amna dina am wala du am. <laughs> Wa non ñi a ci millions non euh, festival des enfants ren ni euh, yalla dogal na ndax. dañ commencé on préparer janvier février lañ départ commencé préparer mars rek ñu arrêté activité yi parce que booba it festival bu mag a mag a mag lañ doon waaj ndax booba festival bu au niveau international lañ ko noonu yóbbu ndax dañoo am ay contact Mali Gambie ak Guinée Bissau pour wàllu foire bi ñoom ñëw exposé comme ni ñuy exposé Ndiassane Ndiassane dégg nga Mali am na ñu indi Gambie am na ñu indi Guinée Bissau am na ñu indi yeneen région yi aussi noonu. ren looloo naroon am. ren lu départ bi loolu lañ déparé woon. du commencé euh, partenaires yi ñuy coordonné ak ñoom ñu war a jaare si yenn ambassades yi pour dox jéego yi nan la ñuy def ba ñëw far juste euh, feebar bi dikk mais Covid bi ba mu duggee ñu dure durant sept huit mois li activité yëpp taxaw kon defe naa lee mënut a amati ñu ne ginnaaw euh, dem na durant sept huit mois tëj nañ suñuy cantine suñuy magasin est que festival bi na am parce que boobu nag difficilement la entreprise yi doon dund ñu dem population bi sonal ñu si ne pour ñu mu am population wax ne pour mu am pour léegi nag ñu jóg man su ko ñu toog waxtaan mu jóg ku waxtaan ak comité bi kenn ku nekk sawar ko ñu jóg durant deux mois la ñu waajee yëpp deux mois ma dem woo borom manège bi waxtaan ak moom mais manège bi ma njëkk a waxal chaque jour minimum un million la ma wax. chaque jour chaque jour minimum un million la ma wax mais loola xale yi ñu ngi koy xaar. Mhm. xam nga loolu mënu ma ko. Mhm. mais fan laa ko jëlee aw ma ko. dégg nga. waaw ah, ñu ne festival bi léegi ci si ci ay millions kenn xamuñu tool. non non non festival sama xaalis mosut gis nga li may def. Uh-huh. li ma def nii weesu bépp doomu Jurbel waa ku mu mën a doon amul kenn ku ko nangoo risqué mën naa see teg sama baaraam. yow kon da nga dem xaru. non adduna kii na risque rien à rien man noonu laay mës a doxee bu njëkk bi uh-huh. damaa ne naa créé dama lay jox leen loo xam ne dafa njëkk weesu. dama ne naa créer benn Jurbel amul li nga xam ne moo koy yëngal mooy nañ fexe ba Jurbel am foire ñu ne foire lu koy dimbale bu fekkee ne chambre de commerce wala chambre de métier wala muy commune yi ñoom si seen sañ-sañ dañoo war a tëgg foire mais problème mooy moo leen posé problème problème mooy lu si gën a cher stand la si bâche daa yëngu ma ne naa def ay stand yu bëri defar pour foire ak moderniser marché hebdomadaire yi ma ne def ay foire si yi loolu laa déparé. waaw mais loolu amoon nga si léegi léegi loola naa dem naa la expliqué ba pare après ma ñëw si la dégg nga mm-hmm. si loola laa déparé. ba ma ba ma déparé si loola. yàlla dogal na mu am mu am mu am demut mu taxaw. Mm-hmm. teewul samay bagage du ma ko sànni ma jël ko garde yii ma changé ko def ko yeneen. Mm-hmm. mais nag dara du la tax a découragé. dafa am lu ma la wax si bu njëkk. ne la euh, am di yàkkamti. lo ya def di ko yaakam tooba saxal mbaamu sulli boo ko defee rek du dem teewul damay damay toog eh, ñi may liggéeyal dañ naan yow est-ce que di nga nelaw di xalaat di xalaat ba mu dundee festi ba 31 décembre xalaat automatiquement lii la jubli si festival bi si yu bëree bëri jot see nag bam bañ ko déclaré rek ma liggéey si lu bëree bëri ne na am foire ma ne ko manège bi bu ñëwee jeu xale mu ànd ak foire yi fokk booba jiwu xale lañ xalaatoon jaay fa ak yenn programme ay glace ak yom seen bañ waxtaanee ak gouverneur góor gi mbay mi ngi ma doon wax sànq mu mm-hmm. ne ma euh, kii de baax na sànq baax na bu baax euh, kii euh, foiru xale baax na mm-hmm. mais est-ce que doo leen si boole waale jaayaale ay yoxas ak ay ñoom seen pour pour pour pour pour foire bi gën a yaatu mag ñi buñ gisee bëgg a jënd mën a jënd mm-hmm. dégg nga mu indi xalaat bu am solo dégg nga boole kook tamit xaw si taxaw si kémt laay kàttan dégg nga mm. parce que góor gi mbay da see liggéey liggéey bu mag a mag mm. euh, mooy le gouverneur mm. ba pare jàpp si dégg nga ñu dem bañ demee euh, ñu ñu ñu ñu ñu ñu continuer si foire bi daal di euh, xam nga déjà manège bi am na fu xale yi di foye foire bi am na dem teg benn son et lumière

Nous son lumière dafa durant une semaine. manège bi nekk fa manège ba li muy li mm-hmm. euh, stand installé c'est la première fois wax nañ ko mais nañ kii défi bi luñ luñ wax nañ ko def. Mm-hmm. artistes yëpp nag néew artistes ñu dara. festival daaw bi mm-hmm. néew artistes ñu waaw ñu ñëw si wàllu artistes yi parce que dañ ne euh, yëpp ngeen woo mais da ngeen a zappé Maysa Mboub parce que Ameth Mboub lay loolu lan <laughs> nga xam nga euh, kii nu mu tuddati euh, Cheikh. Mm-hmm. am na si yoo xam ne nii. sax dama ay détails de am na na dama bëgg a déglu ma mm-hmm. dama bëgg a déglu ma am na si yoo xam ne nii. Mm-hmm. man boo koy laaj sax daf may jaaxal. xam nga tax may xam nga tax may jaaxal xool ñun ñun dafa am ñaar ah. yoo xam ne. Nous ñu nous a Nous déranger si Nous wala ñu gis ñu xool ko si Nous muy ñii dañuy nous duñ dem nous nous nous toujours ñu koy gis nga que la xamal si ak kenn man hmm. nous kon nit ama nous Euh, booy may sa mbub non non non may ma tuuti may ma tuuti may sa mbub sama rakk la maa dem ba dajeeg moom waxtaan ak moom mi ne nañu woo Ameth Mbub euh, am di béy sa comité bi la woo Ameth Mbub mi ne woowal may sa mbub mu woo may sa mbub pour mu jouer si festival bi waxu ko si lenn lu leer am am xaw ma ñoom ñaar seen diggante ndax kee mooy manager am mais nag nit loo mën mooy sàkku ji ne ah damay def nangam kaay def nangam waaye nag boo nekkee ne déggoo ko mais doo foo koy waree doo ko forcé ne ko kaay G léegi nag ginnaaw ñëwul G ñun aussi chaque instant dañ koy ubbi ren bañ defee suñ chronogramme dañ koo boole si biir chronogramme bi bu ne wul ñu xam ne G wul keneen ku ne G wul aussi ñu xam ne G wul waaye dañoo jàpp ne bépp doomu Bawol bépp doomu Jurbel festival bi moo tax mu jóg. té ñing ci si woo euh, na ay artiste comédien bu melni ne Adja Fall hmm. Abdou Ras hmm. euh, ay doomu dëkk bi nen ay Petit Bara lan mo tax wo leen woo leen ñooñu waaw am ñu ci si wo hmm. mais ñen ñi dañoo laaj ben cachet bu jéggi dayo té li ñu xaar ñu ci won cachet ñun dañ ko defon uniquement pour jurbel mais bu ñu woowee benn artiste nga laaj ñu 400000 dañ déblo 400000 lako fay ah, ah waaw dañ ko dañ ko débloqué dina fay mais fan lañ koy jëlé ah wa yëfu jurbel ñu bari gëmuñu won festival bi daw ñu bari gëmuñu ko won deng nga daw ñu bari gëmuñu ko won mais bañ ko défé nak yalla dogal na mu réussir loolu ndimbalu suñu borom la ak population bi ci japp wax deug yalla ak aussi autorité yi autorité yi. ndax man nga dikal ci autorité yi ci japp euh ñi ci japp ñep ndax euh, euh mën na wax parrain yi ak partenaire yi mais buma ci si yit nga xamné nit mo motut ben Je connais le gouverneur le préfet le maire Malik Fall euh, Magui Chanel Mangara euh, ministre Dame Diop euh, maître Ibrahim Gueye qui, Sayer Diop Sayer Diop a liste parce que je ak ren beaucoup, de ma parce que nous sommes en train de wax là. bu baax ba euh, non non ñoom ñëpp ñu leen jaay ndax lutax hmm. xam nga tay yow mën nañ la wax lenn yalla dogal na li nekut ren sa mbir nga war sé dugg mais deewen mën na nek sa mbir àdduna tëddee nonu yow baax et la politique question bu mujj bi. Ah. ndax yow di nga embrasser ci politique parce que gaay yi lay ñooy joxoon eh, fii maire de Diourbel <laughs> Eh, iya, ma non amul leen xam politicien yi moom dañoo dañoo dégg naa am yoo xam soo leen sollicité dañuy dañuy siisu parce muy si social ah. si politique la jëm te xam politicien daa fiir tontu si laaj boobu gis nga fu waay neex fu lan lu tax jaw baax ndax ndax da ngay politique ma ne ko politique minimum mooy koo xam ne nii askan bi je crois mana ne ko kon kay wajar ngi si di sant di gerem, bon li nga xamné ni mom ngeen ñëwoon euh, par rapport ak euh, invitation bi ngeen ma invité euh di gerem waa mubarak, yëpp le commencer si le directeur PDG Babacar Sall sama way la mang kay au passage euh, di gerem aussi wa Diaw parce que wax deug yalla entreprise Diaw dama nan sama ngeureum ak ñom amna tambali way amul yam di geureum aussi sama doomu nday muy suka job parce que lepp aussi duma dugg dara ci lo xamne ne waxtaanu ma seeg moom te tuñ toogul waxtaan lepp lo xamne ni aussi dama nan ku nangam wala sangam te yalla dogal na euh, li dafa nek ben bop di geureum population jurbel bi yeb ma ngi sant di geureum di ñaanal aussi samay waajur yàlla nañu yàlla dogal ñu gudd fan ay ati ati at incha allah waaw. Ah. jërëjëf moom lañ amoon euh, seen émission noo ko dundee tey mu tombeek suñu 31e numéro euh, tey ñu recevoir ki nga xam ne moom mooy euh, Mamoune Diaw alias Diaw Bass tey jii ñu am mbégte bu yaatu mu dem def nag benn point de presse leeral li nga xam ne ne moom mooy festival des enfants bi nga xam ne ne mi ngi ko dem def chaque année rawatina le 31 décembre bi nga xam ne ne moom la nit ñi gënoon ràññee mu koy def nag incha allah rabi di 7 au du au, 10 au 10 euh, avril 2000 euh, 2021 euh, yàlla nañ ci yàlla yóbbu ñu am mbégte bu yaatu nak la dalal ñoo yéeg di wàcc di lamb di daj di xam di xamalé ci réalisation bi Elhadji Babacar Sall ci cadrage bi Gourdiallo Diallo ci photographe bi Soda Gaye ci présentation bi Cheikh le professeur alaykum wa rahmatullah taala